ana lan ngeen doon wuti ca muy jàllaaba muy cuuraay muy bépp accessoire buy jógee màkka ana asalaamaaleykum mbokk internet yu sene info point net uh, ak sene info international ak suñu différentes plateformes yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen teewlu tey ñu leen di nuyoo fii ci foire international bu dakaar uh, ñu ñëw fi nag uh, fas yéene waxtaan ak koo xam ne suñu partenaire la ñuy Saloum Jedda ñu ci profito itam euh, di wax képp koo xam ne rek kon euh, yaa ngi ci foire bi yaa ngi jaay say produits yaa ngi bëgg ñu gis say produits bëgg a fësal say produit euh, boo jokkoo rek ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Sene Info dinañ jóg defal la li nga xam ne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 xam ni moom moo di 48 rue Fleuris. waaw sëñ bi euh, Makhtar euh, yoo leen ci fekk yaay géré standing bu euh, Saloum Jeddah. Saloum Jeddah World Trading. World tey ana naka nga gisee d'abord dama lay laaj foire bi organisation beeg yooyu noo ko gisee. waaw macha allah alhamdulilah ñoo ngi sant yàlla bu baax macha allah foire moom organisation bi baax na trop donc ñoo ngi fi di xaar client yi waaye client yi ñu ngi ñëw daal vraiment. client yi moom ñu ngi ñëw macha allah alhamdulilah. client instant yaa ngi ñëw yéen a ngi jaay daal. macha allah ñu ngi ñëw ndànk-ndànk. ñi ngi ñëw bu baax a baax vraiment. mais nag lu si ëpp nag mooy dañuy visité dañuy visité ñoo xool foire moom noonu la en général dañuy wër ñii dañuy jënd ñii duñ jënd am na ñoo xam ne seetaan moo leen fenn mais nag ñu ngi jënd macha allah ñoo ngi jaay xam ne mm-hmm. bu ñëwaatee ci produit yi nga xam ne gis nañ macha allah bëri na parce que mu ngeen ñëwal benn far benn ci produit yi nga xam ne kon moo am fii euh, Saloum Jidda World Trading. macha allah Saloum Jidda World Trading ñëw leen di d'abord euh, site bu mag bii di Seneinfo macha allah euh, ñoo ñëwoon seet ñu Saloum Jidda World Trading ñu ngi nekk Dakar ci rue Fleuris angle Paul rue 48. ok Saloum Jidda partenariat di jaay ay lépp macha allah accessoire boo xam ne lép waa ñu jógee Jidda Maroc Turquie Dubaï lu si mel ni ay simisi alaaji ay babous yu jógee Maroc jàllaaba euh, samsam ay cuuraay yu joge Jidda macha allah yëpp am na amir oud lem original yooyu yëpp Saalum Jidda da koy jaay Paul Arafat tout ça macha allah yooyu yëpp Saalum Jidda am na ko si lu ma la mën daal mooy boo demee Jidda def umra booy ñëw jarul ngay jënd bagage booy ñëwee Saalum Jidda di nga am lépp incha allah macha allah merci beaucoup euh, Seneinfo ñu ngi leen nuyu ku nekk sa tur di am mbégte kontaan ci ñëw gi ngeen ñëw fii ci foire internationale de Dakar fekk suñu fii ci Saloum Jidda Volu Trading macha allah ah, Saloum Jidda nag euh, tey fii ñu ngi fii ci foire internationale di yëngu ci lan euh, lépp li nga xamante ni macha allah mooy jógee Jidda muy lu mel ni si jaada yi kurus yi sam-sam lu mel ni mbaxana yi ak jàllaabe yi lu mel ni simisi alaaji yi macha allah ak cuuraay yi ak parfum yu neex yi yëpp macha allah salum Jidda boo ci bëggee bo bi nga xamante ni mooy original bi jogee directement Jidda macha allah boo ñëwee fii ci Saloum Jidda di nga ko fi fekk ci foire internationale de Dakar ah ñu ci woo askan wi yëpp ndax mbir la moo xamante ni cosaan la Wolof nee na lu yàgg dëgg la Saloum Jidda macha allah ki ko créé muy suñu baay muy baay Aliou Sakho radiyallahu anhu mu ngi ko créé euh, sampoon ko fee ca euh, rue Floris 48 euh, ca Sandaga foofu la place bi nekk bu ñu jógee ko fii fii ngeen ñuy fekk depuis boobu ba léegi nag macha allah mosul nangu ñu jaay lu dul original Saloum Jidda ci original lañ ko xam moo tax prix bu ñu wax ci Saloum Jidda dañ koy nangu ndax ku ñëw Saloum Jidda rek jaay original maanaam moo tax nga fii ñëw macha allah Saloum Jidda moomu nag moo leen di xaar fii ci foire international de Dakar. képp ki nga xamante ni bëgg nga loo xamante ni original la mën nga koo am di ko yor di ko yor ba faaw muy jógee koo jidda te macha allah du nekk première du nekk deuxième qualité du nekk troisième qualité mais deux première qualité lay doon macha allah boo ñëwee fii ci Saalum Jidda da ko fi fekk fii daal képp ki nga xamante ni dem nga makka bëgg a am sërica bagage vingt trois kilo nga am tey booy ñëw jarul ngay jënd dara yemal ci say vingt trois kilo jarul ngay am excès de boo ñëwee Saalum Jidda lépp li nga doon fekk Jidda di ko fi fekk macha allah nga mën a jox say mbokk say xarit ak say dëkkandoor lépp li nga xamante ni dañ koy barkeloo ca Màkkatal Mukarrama di ko barkeloo ca Medinatul Munawwara di ko barkeloo macha allah ci barabu Yonent bi salaay salaam boo ñëwee fii Saalum Jidda di nga ko fi fekk ñu ngi leen koy ñu ngi leen di woo fii ci foire internationale de Dakar macha allah buñ fi jógee ngeen fekk ñu Rue Floris 48. actuellement ñu ngi si foire Dakar internationale de Dakar euh, ñu ngi pavillon vert. macha allah yombalal leen seen jënd ak njaay macha allah bu ñuy weesoo loolu ñu ngi Sandaga 48 rue Floris angle Poulor suñu adresse numéro téléphone yi 77 356 32 32 ku ñu si woo di ñu jot 33 823 26 vingt ku ñu woo si numéro yi incha allah di ñu jot bu soobee yàlla mais actuellement ñu ngi pavillon vert Saloum Jidda yombalal leen seen jënd ak